Bessé xale bi moo def buzz yàlla yal na ko yàlla sàmm aar ko musal ko muccal ko eh, yal na ko yàlla taxawu yàlla barkel ko yàlla may ko mu mottale ndawam incha allah yàlla sàmm ko moom ñi muy àndal ñëpp. ñuy sant waa Medina yëpp ndaxte lii mbokk rek moo ko mënal nitam ay maamam ak ay bàjjanam ñoo ñëw wane ni Mouhamed Béji ku ko xam-xam ne Medina la dëkk vraiment juddoo fi yaro fi. tey ay mbokkam yëpp nekk fi ñu ñëw génn euh, ne dañ koy defal surprise bi vraiment ñu gisandoo ko asiko yi ASC yi Fat Thiam jiite yëpp ñu génn ànd ak ay maamam ñu kontaan ci lool di wax rek ni euh, xale moom buy dem ay mbokkam ñoo koy njëkk a gunge donc tey ay mbokkam taxawu nañ ko ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla sàmm yàlla aar ko yàlla lafal ko cat yàlla musal ko yàlla muccal ko yàlla may ko mu eggalee sagoom yàlla teg ko ci yoonu siraatal mustaqim yàlla dooleel ko yàlla sàmm mboole mu jullit képp kuy njaboot rek yal na la yàlla sàmmal sa njaboot ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp xale la nag ñu ngi koy dénk Sénégal yëpp ñu ngi koy dénk àddina yëpp ñëpp bëgg nañ ko macha allah yal na ko yàlla taxawu yal na ko yàlla sàmm tamit yal na ko yàlla dimbale ba mu bañ a décevoir ñi nga xam ne bëgg nañ ko bañ a décevoir ay mbokkam toujours ñun liñ koy wax rek mooy na xam mooy kan na xam fan la jóge na xam fan la bokk na xam lan moo ko war tamit na xam lan moo ko warul donc euh, foog naa ni ci loolu rek lañ koy ñaax ndaxte ci famille bu baax la jóge ci ay wayjur yu baax la jóge donc na góorgóorlu rek yàlla baax na incha allah. ak concert bi muy waajal nii waaw léegi waa am na programme yal na leen si yàlla taxaw rek incha allah yàlla defal leen ci sutura bu baree baree baree baree baree incha allah na ko ñëpp euh, dolli ñaanal rek ñoo ngi koy dénk waa Sénégal yëpp daal yal na ko yàlla sàmm aar ko incha allah.